di accompagner li nga xamantene mom moy mooy ndaw yi Pikine Ouest yi depuis un certain temps depuis 2000 août 2012 ñu désigné ñu comme parrain naturel bu zone ñu and ak ñom am lu bëree bëri lo xamantene nak depuis 2012 ba légui ay coppite ñong ko ci indi di mëna gëna gën li nga xamantene moy ndaw ñi subvention bi nga xamantene mom lañ fi fekkone ñuko doon defal équipe nawétane bi ñuy soga installé wu comme maire 150 000 francs la woon pour l'équipe qui est. Rennes, ils ont 500 000 francs par équipe. C'est ce qui est beaucoup. Et ce qui est important, c'est qu'il y a des zones 1. Si l'épouling a maintenu des gemmes qui ont fait l'organisation, si les gemmes qui ont fait zone 1 depuis 2012, nous avons formulé l'expression de besoin bi, nous avons fait entièrement en charge. L'eau de bouillon est fait, nous avons fait que nous avons fait une zone 1

talent nous ñu am nak ci biir banlieue ku xam xalé yi bu ak talent la talent bobu nak lañ bëgg ñom ñu jël développement économique et social bu sunu réew kon nak loolu Nous li nga xamantene képp fi c'est la jeunesse qui va gagner c'est la jeunesse de Pékin Ouest Ouest qui va gagner lenen message bi nga xamantene mom la len leen lancer té profito ci ndaje bi mo nekkoon li nga xamantene ne le chef de l'État euh, son excellence monsieur Macky Sall mom lañu ñu dénk ko ndaw yi réew mi yëpp mooy ñu défarat jikko yi ba mu démé ba xamné jikko yi kat dañoo commencé soxé ci biir réew mi dafa tànn ndaw ñi né yeen la ko dénk pour ngeen défarat ko ci biir réew mi kon nak duñu mëna mën wu ci fenen fudul ci li nga xamante ne moom la ñu héritage bi ñu jëlee ci ku mel ni Cheikh Ahmadou Bamba ku mel ni El si ku mel ni ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ci héritage bi ñu jox nekk héritage boo xamante ne tey ci jom la ci fulla ci fayda ci ngor ci teggin ak ci yar kon ñun am nañ mission boo xamante ne moom la ñu war a reconstruire waat ci biir réew mi loolu nag dinañ am occasion lancer ko ci année bu at mu bees mii nga xamante ne tabax nañ lii nga xamante ne tey jëm na ci programme national de construction citoyenne et de volontariat kon nag loolu mooy li nga xamante ne message bi ñu waroon a lancer fii ci Pikine te xam ne nag émergent ci Pikine émergent lay tàmbale te yaakaar naa ne tàmbale bi door na bu yàgg